voilà euh, jaajëfal bu baax waa Régie euh, borom euh, secret yi ma delluwaat ziar la. tey lan nga ñu andil ci ay secret. waa xanaa li mbokki taalibe di sàkku. Mhm. muy wàllu kaaraange. nga xam ni yàgg nañ ko sàkku sax. waaye am na solo de kaaraange. ñu di leen jox lu am solo ci wàllu kaaraange. Mhm. ci wàllu kër ak place. bu ko defee bu ëllëgee comme temps bi bu bariwul. ñu indi leen ci kaaraange doomu aadama xanaa liñ leen ci njëkk a wax rek maanaam ñu xam ni eh, nit ki lépp lu muy bëgg a def muy sànc nga jóge ci kër gi wala demaat ci geneen kër mm-hmm. danga ko war a xool jiital fa ay jaan am na solo bu fekkee da nga jóge ci place bi tamit di demaat ci beneen place mm-hmm. dañ la ko war a xoolal eh, bu ko defee la ca war nga def ko doog a dem mm-hmm. ndax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yëpp mat a xool waaye ñeent yee ci raw mm-hmm. mooy bi ci njëkk mooy ab ab sëy mm-hmm. ab sëy bala nga cee dugg danga ko war a xool mm-hmm. ba xam seen tabixa yi ànd na ñaareel bi ab sanc ñetteel bi mooy tawat bu yàgg ci yaram nga yàgg dem hôpital te lu mu doon danga ko war a eh, beneen bi ci topp ab tukki tukki ngay jugee ci dëkk di demaat ci beneen dëkk loolu danga ko war a xool ba xam dëkk boobu ak bis bi ba xam bis bi ngay tukki baax wala baax na wala baax kon loolu ñu ngi leen ci soññ bu baax tey nag ñu indi leen ah, lu jëm ci wàllu kaaraange ci wàllu palaas wala ci wàllu kër mm-hmm. ah, bu ko defee lii bisub dibéer leen koy bind ñeenti aaye la yu nduroo waaye bu ci nekk dinaa la wax fa mu nekk ndax daa am bu ci nekk daa am wuute tuuti mm-hmm. waaye bu ci nekk dinaa leen wax fi mu nekk ak ci ban ah, ban ban numéro la nekk d'accord bisu dibeer lañ koy bind. dibeer mooy ban bés dimanche. dimanche mooy dimanche waaw. Mhm. Euh, waxtu njolloor it lañ koy bind. Mhm. waxtu njolloor mooy diggante midi. ba ah, ba ba une heure jëm quatorze ah, heures euh, bi waxtu woowu koy bind ndax bariwul. Mhm. muy wala boobu mooy bi si njëkk. ma nga ca suratul laxraaf aaya beneen bi ci topp mooy wala tamusuha bi soo in fa yaquusakum azabun xaribu booba ma nga ca surtu Hud ah, beneen bi ci topp mooy wala tamusuha bi soo in fa yaquusakum azabun asimun ma nga ca surtu Suhara aaya 156 ñetti aaya yooyu dañoo nduroo waaye dañoo am jeexalkaay bi dañoo wute mm-hmm. bu njëkk ba azabun alim la jeexe bi ci topp mu jeexi xazaabun xaribun bi ci topp mu jeexi xazaabun asimun bu ci nekk wax naa leen fi mu nekk boo ko bindee ba noppi nga bind ayatul kursi ma nga ca sóoru bàqara bind xunóot bu defee nga daal koy lem ba mu jekk nga ëw ko wut foo ko def ca kër ga boo ko fa takkee baax na boo ko fa suulee baax na waaye place boo ko def wala kër goo ko def rab du fa dugg seytaane du fa dugg jinne du fa dugg place ba du lakk te suñu borom dana ko def dana fa def naataange. Mm-hmm. muy loo xamante ne lu nu lu nu seet seetaat ko la. Mm-hmm. bari na mag ñoo xam daa daan ko def seen kër. Mm-hmm. Uh, beneen bi ci topp muy kaaraange palaas bi tamit ci place lay dox. Uh, ak ci kër moslaayu kër la bu baax bindal surtout uh, dangay bind surtout. waaw mu ni mu ni ba tey lii muslaayu kër gu baax la mhm. bindal bindal lii suur ko ca penku ba waaw da nga koy suur ca penku kër ga muy bisimillahi rahmaani rahim yusabihu lillahi maa fi samawati maa fi l ardi maalikul xudduusil xasiisul ba mu jeex da ko defee da nga def ci penku kër ga mhm. nga bindaat bisimillahi rahmaani rahim ya ilaya ano asmaaw nafaru mina jinni fa xaaloo inaa samina quraana hajaban yahdi nga daat koy suul ca sowu kër ga mhm. bu ko defee nga bind sourate Naba yi muy am ay tasaa'ilun am ay tasaa'ilun ba mu jeex nga suur ko ci uh, ci wàllu wet wet gi jëm gànnaar bu ko defee nga bind yaa ayyuhal musammilu xumi lay la xumi lay la ilaa xalilan suul ko ci geneen wet gi nga xam ne moo jëm saalum xam nga ñeenti wet yëpp def nga ci aw saar l'est l'ouest le bu ko defee nga daal di bind yaa ayyuhal mudassir xum fa ansir ba mu jeex nga wàq digg kër gi ba mu xóot nga def ko fa wax nañ ni boo ko defee ci kër ñeent xibla yu nekk suñu borom dana yabal malaaka mu fa taxaw di aar kër ga boo ko defee ci place noonu lay demee te suñu borom dafay def naataange maanaam dépasse du fa manqué te saytaane du fa dugg bay jaxase sa njaboot ah, ba tey lii muslaay la ci ab dëkk mm-hmm. mag ñi daan nan aar bay aar ab dëkk maanaam maanaam carte bi nga nekk mm-hmm. nga bëgg suñu borom musal la carte bi de am jàmm rek ndax xéewal nit ñi doon. am na solo de doon benn manifestation yi am lépp jaxasoo. lii lii day aar ab dëkk. ku ko def ci dëkk rek wala euh, carte ba nga nekk jàmm mm. fay am. muy sóoratu noo. Mm. Euh, sóoratu noo boo ko bindee ci euh, bu ci nekk këyitu këyitu boppam. Mm-hmm. mooy bisimilahi rahmaani rahim. ina arsalna noohan ilaa xawmi anazir xawmalaka min xabli an yatiyahum azabun alim ba mu jeex. Mm-hmm. nga bind ko juróomi yoon. waaye bu ci nekk rek kayitu boppam lay doon. bu ci nekk ak kayitu boppam. bu ko defee da ngay kayit maanaam. waaw bu ci nekk benn kayit lay doon bu ko defee dangay ngay kayit bi ba mu sew teg lem mu sew ba nga xam ni lem nga juróomi kayit yëpp nga wut fital. bu defee da ngay soog nga wut lan baal ma fital. fetal la dégg nga ko de dafa neexul lu dégg rek dégg nga. waaw bi foo koy jëlee nag. waaw <laughs> mag ñi daan koy fatalee nag. waaw <laughs> foo daan am fetal. Ah. mag maanaam chef de quartier uh-huh. léeg-léeg koy faral di am bu uh-huh. ko defee nga wut fital uh, jëmmi uh, kayit bu nekk nga soq ci bundu fital fital benn bi mu jëm penku fital benn bi mu jëm sow fital benn bi mu jëm penku mbaa benn bi mu jëm gànnaar nga ne ci koñ di fital bu ko defee uh. dangay wàq nag ba mu xóot ci digg dëkk bi uh-huh. nga fital fa benn suul ko ah, waaye dëkk euh, boo ko def da njëkk yëglu ba pare wala dëkk boo ko def bal du fa tàkk lool loolu xanaa léegi la rek waaye bu fekkee dëkk àll yi da nga daan tëdd ba guddi nga dégg ay bal am na ñoom xam ne am na ci ñoo xamante ne bu amee bu nu amee man dëkk naa fii Touba ku naan sëñ mhm. Baye Dame Sène mhm. di nit ku baax yàlla na ko yàlla yërëm mhm. ah, bu guddi musaana jot daraan tiire ñetti bal sag bu nu reeree dañuy dégg bali waaw ngir wane ni rek waa koñ bi ak ñu jubadi ñi xam ni man fagaru naa. maa ngi fi toog di xaar ah, loolu wàññiwul dara daal. léegi moom. Ah, ah. Mm-hmm. bu fekkee nag eh, fi nii. Eh, avant ngay ñëw si loolu. Eh, mm-hmm. tey mbaa booy booy fetal fii nii dakaar mm-hmm. xanaa da ngay dem ci préfet walla nga dem police avertir parce que boo tiiree fii. Euh, tem ñu ñu jël si la. wala nga génn rek génn Dakar dem. non maanaam fital gi du doon looy jàkkaarloo ci kër di fital. Ah, mais tëf bi ku ko dégg. ku dégg teel rek man sama genre <laughs> gi man sama dëkkandoo di teel teel ma woote de ne ah fii am na ay teel leen xool ba xam lan moo fa wala dëgg dëgg ah waaw. nga daan leen di jox secret bi rek dégg pem pem. <laughs> mooy woote de aar dëkk bi. mbiri pistolet rek. ñuy aar dëkk bi ñoom laay woo ne leen kaay leen xool lii na la ba xam kaaram bi la wala lan la lu mu doon. continuer continuer yow. léegi dinaa leen jox beneen boo xam ni. Ah. moo gën a simple. waaw boobu xaj na. Ah, loolu ñu gën a teelal bi de dëgg yàlla. <laughs> boobu moom nañ ko bàyyi rek gars yi nekk ci. ci àll bi àll bi nga xam ne ñoom loolu du doon problème. aywa <laughs> surtout asri ku ko bind. Mhm. saafara danga koy def saafara ba pare bu ko defee nga daal koy def ci biteel. Mhm. Euh, nga xam ni biteel bi def nga ko ci saafara ba pare nga xam ni kii na nga tëj ko. Mhm. boo defee nga laat ko wàqi fa nga nekk ba mu xóot. wala bu fekkee dañ koo korole comme léegi dëkkuwaay yi sax daa changé. mën nga ko wut foo ko def ci kër gi moytu mu toj nag. waaw majj mu toj mën ko koo takk foo xamante ne xale yi duñ fa jot mm-hmm. mooy sabaha lillahi ma fi samawati wa asisun hakimu huwa lazi ahraja lazi kafaru min ahlil kitaabi ba mu jeex mm-hmm. bu defee nga def ko saafara tëj ko ci biteelu verre waaye tëj tëjukaay bu mu bu mu am air mm-hmm. moom it euh, muslaay la ci wàllu place wala ci wàllu kër waaw xam naa foofu la ñuy daaneeli suñu kàddu. léegi man dama la bëggoon laaj rek parce que euh, lu neex ci yow mooy da ngay joxe ba pare jox référence maanaam fi ñu mën a fekk aaya bi ak yooyu. Mhm. waaye sama classe bi nga xam ne amaan amaana seen xalima demewul noonu. Mhm. ñoom buñ buñ ko bëggee def te seen jàng mayu leen ko ak yooyu et li nga wax nii day compliqué ñoom nan lañu mën a def. waaw xam nga xam nga doomu aadama. mën nañ ñëw ci yow au moins nga defaral leen ko. xam xam nga doomu lépp lu muy def rek. war na caa jiital xam mhm. bu ca bëggee am résultat loolu sax mooy tax léeg-léeg suñu joxee secret yi ñu ci ñu ci joxe suñu numéro ok li ñu ci jublu mooy ku ko xamewul noonu mu boo ñu woowee bu di mën naa am sax ñu doon am jot di bind mhm. waaye du ñàkk ñu jox la numéro koo xam ne ci suñuy bindkat moom buñ ko ko waxee rek dina la ko bindal bu ko defee jox la ko nga daal koy mën a jëfandikoo ndax mën naa am yow sax mën nga koo man ba pare doo am jotug def ko. ndax saar yi léeg day gudd. waaye tey boo jëloon numéro Fawzeyni ni ko sekkee na sàngam de bëgg naa koo def ci sama kër wala bëgg naa koo def sama place dina la jox numéro Cheikh Sey wala numéro euh, ku naan Moussa mu bind ko bu ko bindee nga daal koy jox. am na ay bindkat yu ne Touba am nañ ay bindkat yu ne fii ci dëkk bi am na ay bindkat yu ne ci yeneen yeneen i dëkk. waaw baaxee ñu nim lay doon xam ne ku la ku la ku bëgg explication par rapport ak lii wala ku ko tële def mhm. nga bëgg ku la ko defal aussi waaw wala sax wala wala sax nga bëgg listixaar mhm. gis nga nit yonente bi sallallahu alayhi wa dafa santaane ni ab jullit at mu mu dugg war na cee listixaar d'accord dañ weer wu dugg war na ko cee def bu ko mënul at mu dugg war na cee xam xool ay mbiram ndax listixaar dañ koy fanaanoo bu ba set bokkut ak seet boo ko ak seet yi ngay ñëw ñu lay seetal di la wax listixaar moom la lislaam bëgg d'accord ñun nag ci mu alxilmu nujoom muy xam-xamu biddiw ci la ñuy listixaare mhm. fu ne boo xooy boo xool boo xool booy xool booy xool asamaan si bis bu ne nga gis biddiw biddiw yu bari léegi mhm. biddiw bu ne biddiwu doomu aadama la moo tax mag ñi da nga daan toog ñoom nga gis biddiw bu fenk mhm. biddiw bu jékki-jékki rek romb étoile filante waaw ñu daan ne am na ko fi war a jóge wala bu jëmee penk ñu ne kilifa la bu jëmee saw ñu ne kilifa aada la ñu ne lan la bu demee saw bu fekkee biddiw bi dafa jékki-jékki rek génn jëm nii jëm penku léeg-léeg mag ñi dañ naan lee kilifa kilifa dina fi jóge bu fekkee dafa jógee nii jëm nii ñu ne kilifa aada dina fi jóge kon nit ku nekk loolu li muy seetale mooy am na biddiwam léegi dafa am xam-xam boo xamante ne boo ci xoolee nit ki da ngay xam mbiru biddiwam te mm-hmm. loolu mooy dëgg-dëgg seet mm-hmm. te nit ki bu xamee seet bu xamee biddiwam boo ko listixaaree ba xam biddiwam bu fekkee raw xaanam ndox la da koy sax danga koy danga koy mën nga koo digal sax bañ koo ñaanal ni ko deel saraxe lu jóge ci ndox comme sa jën wala muy saraxe ndox wala muy saraxe xorom yu mel noonu bu fekkee raw xaanam da ko waxoon muy suuf da koy digal muy saraxe lu bàyyikoo ci suuf comme ça gerte wala ñambi wala yu mel noonu bu fekkee raw xaanam ngelaw la da koy digal muy saraxe ay fruits yi sax ci kaw mm-hmm. bu fekkee rawxaanam tàkk-tàkk la mhm. danga koy saraxe danga koy digal muy saraxe maanaam li ñuy togg mhm. comme ça lu jaar ci taal ba pare mhm. léegi nag yooyu nag euh, faw ñu fanaanoo say mbir wax la ko li ngay dund ak li sa kanam ak jafe-jafe bu mën a nekk sa yaram ak lu ko war ak lu mu ci a doon rek ñu xibaar la numéro bi léegi numéro bi da ñuy woo ci 78 530 69 81 78 530 69 81 Mm-hmm. insha allahu rabbi ñaan nañ yàlla ku aajoom nopp a faju yàlla bu nu jëflante. Euh, borom secret yi nga baal ma tout ci saar bu mujj bi nga wax. Mm. da nga ne euh, ñu jël euh, saar bi ñu def ko ci bouteille. butéel ñu sooy transféré waaw. ver verre. donc am nit ki nit ki nga xam ne moo ngi seetaan amul droit def ko ci bouteille en caoutchouc. waaw xam nga xam nga butéelu ver ak butéelu caoutchouc bokkul. ndax butéelu verre ñaar boo ci defee saafara. du gaaw a du gaaw a nëb. Mm-hmm. du gaaw a nëb. Mm-hmm. bu fekkee nag euh, biteelu biteelu kawsu la mën naa mujj dem ma dem dem dem dem dem. question de conservation ba newi kii bi sax mm-hmm. ba newi biteel bi. waaw waaw léeg-léeg nga gis biteel xam nga loolu da ciy yàgg moo tax. mën naa dem fuur fuur fuur fuur ba nga xam ni. après biteel bi mën naa expliquer wala dara. d'accord loolu rek lañ ci jublu waaw. wala ku ma woo tamit ci numéro orange bi jotoo ma. Mhm. ndax léeg-léeg dama koy damay jàpp. waaw mhm. may woo ci numéro Tigo bi. waaw 76 883. 18 76. 883 18 76. maa ngi profité bu baax di nuy nag sama xarit sama soppe. Euh, di kenn ci man muy Papies. Mhm. maa ngi koy ziar bu baax. mu ngi koy jaajëfal bu baax Papies Mbaye. Papies Mbaye di bu mag bi. di ziare sama jigéen soxna Aïssa. waaw ah, di ko di ko jox wàcc waayam. di Aïcha Camara waa. on lui fait un gros bisou. Aïcha moom tamit jaajëfal nañ la en tout cas kon su ko defee rendez-vous mercredi prochain lay doon. incha allah incha allah. alors euh, Aïcha mu euh, ngi tudd Aïcha rek ma jàpp ci Aïcha bi. kenn ah. <laughs> <laughs> tey naa ñu bàyyi la rek nga joxe sa mot de la fin laataa ñuy ñaanalante ce fut un plaisir de partager le plateau avec toi. c'est toujours c'est plaisir également de partager le plateau avec toi yow moom euh, sama partenaire nga euh, tu es mon préféré kon ni ma ko doon waxee <laughs> euh, Cissé donc voilà moom aussi je lui fais un gros coucou ma Ousmane na namm naa la donc xanaa rek sama tàggatoo tey ma daal di remercier sama partenaire donc Nday Mbay kooku moom mooy jaar sama coiffure. Euh, semaine bi yëpp donc. moom euh, c'est une belle coiffure merci beaucoup yaa ko njëkk a moo ngi tudd Choupi Beauty loolu la boutique am tudd donc moo ngi nekk euh, fële ca Parcelles Assainies poste santé unité 26 donc moom day defar tout ce qui est teinte cheveux pédicure manucure maquillage soin de visage lépp loo xalaat ne jigéen dina ko mën a utiliser rek moom daf koy daal defar donc mën ngeen koy contacter sur le 77 687 51 64 di la jaajëfal bu baax a baax Ndeye Euh, donc di leen jox dig daje euh, ba incha allah demain c'est jeudi ñu daal di ñëwaat yeneen astuce sur ce prenez soin de vous et bonne journée à vous. malheureusement un homme ça pas de perruque sinon man j'aurais pu oh. bénéficier de de ses largesses. Oh. kooku noonu ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. mën nga dem defi soin de visage. waaw ah, ok waaw kon kon ba <laughs> tey baax na. nday foog ma indi la Kajoor ah. mi ngi noonu en tout cas ça a été un plaisir. Keina c'est un euh, plaisir on a eu euh, Weuz mi nekk ci suuf depuis le matin Bamba ak euh, Mouhamed ñoom ñëpp nekk ci suuf Khady la monteuse bi nga xam ne moom mooy jàllale éléments yi mooy monter éléments yi c'est l'équipe de la matinale di jaajëfal ñoom ay euh, Aïcha mi noppalu on lui souhaite un très bon repos mm. euh, ñëpp ñoo xam ne itam ñu ñu doon a teewlu jaajëfal nañ leen bu baax a baax ñu leen di dig daje rek euh, demain à la même heure dañ leen di bàyyi su ci kanamee di ngeen jot ki nga xam ne moom mooy Grégoire à 10 heures pour Flash après ngeen continuer ak assemblée ndax liggéey bi nga xam ne ba léegi ñu ngi leen koy digtal saa su ne ñeel nag euh, koppar yi ñuy nattal bépp ministère boo xam ne euh, mu ngi Sénégal ngir mu mën a doxal li nga xam ne moom mooy année bi dañ leen koy digtal en direct boobu ba léegi yéen a ngi koy gis mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal kendalu jàmm te di ko sakku ci yéen.